ñoo ngi rafetlu li muy liggéey parce que lii transparence mi ngi ci le fait que maanaam muy def li pare woo ñëpp ñu teew waxul rek comité CDS mais population bi dañuy ñëw teew ñu teg seen bët ci li muy def ni yëpp donc loolu dañ koy rafetlu euh, mi ngi def ay régulation yu bëri au niveau de Ngoundiane euh, wax na ko sànq euh, poste santé bu Thiangaye moo ci mujj

Euh, état dafa jox ay bànqaas yoo xam ne daf ko jox communes yi gox yi ak gox goxaan yi bànqaas yooyu éducation def ci bokk culture def ci bokk ndaw ñi ak tàggat yaram dañ ci bokk waaye wérgu yaram ci boppam def ci war a jiitu ba tax na ñun chaque at dinañ jël euh, ni poste yu toll ku ci nekk ñu jagleel la valeur un million ci médicament yàlla def na ñeenti poste lañ amoon ren ñu am juróom daaw médicaments yi ñeenti millions la woon ci ñeenti pos ren juróomi post lañu juróomi millions ci médicaments yoo xam ne PNA lañ ko jënde du nu yem foofu dinañu yëkkati juróomi millions poste bu nekk ñu jagleel la ko ngir jàppale leen ci courant beeg ndox beeg yooyu loolu bokkul ak liggéeykat yi nga xam ne dañ leen a ci post yi muy chauffeur yi muy agent de santé communautaire yi ak dépositaires yi loolu ku ci nekk jëlal nañ la kenn muy ñett par poste boo xaymaa fukki ñeenti juróomi poste yi fukki travailleur la ak juróom yoo xam ne mairie bi moo leen di fay donc loolu rek doyoon na jàppale waaye yemunu foofu dañuy ñëw ci infrastructure yi boo demee sew xay tabax nañ fa macha allah poste bu mucc ayib mu am post ak maternité am na logement waaye logement bi dafa génn post bi ñu tàmbali fa post donneur bi moo ñu ko tàmbalil waaye yàlla def na àggalewu ko bu nu yàlla mayee deux mille vingt bu ñu ko fekkee dana àgg moo xam bailleur bi moo xam ñun la bu nu fa jógee dinañ ñëw ci post Ngoundiane yàkkali ko waaye ren jii ni infrastructure bi ñu def mooy Ngoundiane càngaay nga xam ne dëkk bu mag la ginnaaw mburwaay ci wàllu population mu ëpp population dafa amoon case case boobu moom la ñu transformé en poste de santé tabax nañ ko tabax logement bi une salle d'observation yi waaye équipé pour une valeur de presque 25 millions loolu buñ ko défé ci ndimbalu état la waaye ci xarañu commune bi nga fonds de concours yi état jox dañu jël ko fonds de dotation yi médicaments yi mu melni commune Sénégal yu bëri war nañu mëna a lu parce que liñ ko est lu ci ëpp état ko jox ku ne defu ko rek dafa wax lu ko neex te fonds de dotation ak fonds concours waaye dañu xam ne wérgu yaram dara gënu ko am solo ci dundinu askan wi loolu bu buñ koy def tamit dañu ànd ak ay nit ñu baax ñoo xam ne wax dëgg yàlla fi nu fekk santé ci ngunjaan ñoo ñu ci jàppale parce que man du ma faj mën naa jënd médicament joxe mën naa jënd ambulance mën naa tabax waaye mënu ma xam seringue sax mënuñ koy ñii ñoo yore poste yi ma leen di gërëm bu baax ànd nañu bokk benn waaye ànd ak président d comité développement sanitaire yi pour véritablement santé n'est qu'une une une activité phare prioritaire dans la commune de Ngoundiane